vingt cinq di ay kilifa jàpp naa ne ay gor jàkkaarloog sénégalais yi nee leen du ñu dem ci dialogue boo nekkee mandataire bu beneen candidat waxalal sa candidat naam am na ñu ñu woowoon jàpp naa ne ñooñu de bonne foi comme mii ni pratiku pratique seen mandataire ñu woo leen amaana sax mandataire dañ ko woo jokkowul ak candidat am dem jëli carton d'invitation ñun nag yàgg nañu xam ay lay ak tappale yi ñuy def loolu tax jéemoon suñu sox jege li ñu waroon jox mooy suñu fichier électoral en bonne et due forme jox ñu ñoom. waaye am na ñu jël seen carton d'invitation. non ñu pour dem si dialogue ba suba. déedéet képp ku jël carton d'invitation ci FC 25 bind nga ko ci groupe bi nee nga woo nañu suñu mandataire pour mu jël si carton d'invitation jël nañ ko waaye ñu ngi des ci position boobu. dañu am groupe bu ñu nekk ñun nii ñëpp ah euh, Mame Boye mun na ko confirmer Cheikh Tidiane Dièye mun na ko confirmer képp kuñ ci woo sa mandataire léeg-léeg mandataire bi sax day dañ koy woo mu dem jëli ba pare rendre compte leader candidat bi candidat bi posté ne jot na carton d'invitation waaye dewuma wala sama mandataire woo nañ ko jot na carton d'invitation waaye demul am na ñeneen ñoo xam ne woo nee nañu woo nañu seen mandataire waaye mandataire bi demu ko gàntal waaye li am ba am mooy xam naa ni ci ni ma gis FC 25 taxawee bi yaakaaruma ni dinañu dem ñi fa nekk wax def conférence de presse jël ay engagement public yaakaaruma dinañ dem parce que finalement lan lañ fa mën a jëlee déjà ñoom nee nañu ñett ñu ñuy invité mooy Benno Bokk Yaakaar ak Benno Bokk Yaakaar bis ak Benno Bokk Yaakaar kii élargi ñooñ seen bopp nee nañu dañuy dem ñett ñett bu taxaw benn bokk yaakaar waaw bennoo bokk yaakaar bennoo bokk yaakaar euh, kii bennoo bokk yaakaar euh, double bouton ay bennoo bokk yaakaar triple bouton donc bu fekkee ñooñu déjà ñun mënuñu jubóom ñoom bu fa demee il va gis ngeen waa candidat yi 19 candidats yi sax dañu féewaloo ci seen biir parce que am na ci ku wax justement ki nga waxoon ni mandataire am ñëw na fii moom nee na d'accord na pour ñu reprendre processus bi bu fekkee ni moom d'accord na pour ñu reprendre processus bi lu gën a yomb mooy mu mu démissionner bàyyi bu dee gëm na taxawaay gis ma nag ban base la ñuy reprendre processus bi parce que damay fàttali damay fàttali et loolu mooy wane caaxaan yi ñu woo na Sénégal comprendre man bokkoon naa ci candidat 2000 élection 2019 dara beesu fi ci lu conseil constitutionnel dogal. gis nga du ma ñëwaat ci mbirum parenage la fi xew ci deux mille vingt quatre bi deux mille vingt trois deux mille moo xewoon deux mille dix huit deux mille dix neuf ci parrainage ñun dañu ne ay candidats introuvables yu dul jeex yoo xam ne dañu def recours conseil constitutionnel yóbbu ko seen i carte d'électeur wane ni que ñii ñu ngi ci liste yi que amaana dañu juum ci seen tur ci fii ak fee du ci dellusi te loolu direction générale des élections yàgg naa ko wax ci boppam dafa ne woon bu yooyu amee comme nga Bernard Casimir Cissé moom moo fa newoon directeur des élections de de de la communication mu expliqué ni bu ñu juumee ci sama tur def ci benn yokk ci benn es amul problème ñu génne leen vidéo bi nga xam ne ci lañ ko doon waxee la ko doon waxee boole ko ci recours yóbbu conseil constitutionnel faale wuñu président Macky Sall yëgoon na ko defoon C25 boobu <laughs> C25. 2019 2019 xeex ci li ñu mën man ci boobu fanaan naa fa poste maa ñoom Thierno Bocoum ñoom Omar Sarr nga xam ne tey ministre la maa ngi koy nuyu au passage ngir lii spolié bu dee spolié 2019 oto spolié Macky Sall xamoon na ko yëg na ko faale wuñu ko woon boobu élection législative yi weesu les mêmes récriminations amoon na amoon na ay spoliés am na yu gën a graaw sax koo xam ne dañ leen écarté parce que pêcheurs yi dañ leen écarté woon parce que nee nañu seen chèque du chèque de banque chèque normal la alors que lu gën a yomb dem seeti vérifier ni que chèque normal boobu mais compte bi bi euh, xaalis bi dugg na ci compte CDC mais dañu ne comme du chèque de banque dàq nañu liste boobu ci loolu déglu leen bu baax li ma leen wax c'est extrêmement important ñu ne ñooñu ay ñooñu du ñu ay spoliés les pêcheurs là élection législative am ci anam yooyu d'accord tey ñu ne ñan ñooy spoliés ñan ñooy candidats spoliés te ñan ñoo jiite mbirum spoliation bi ba nga xam ne ñoom ñoo yóbbu lu projet proposition de loi assemblée nationale ñu ne waa PDS la nga xam ne waa ji dafa dañ ko jàpp à flagrant délit de parjure mu def déclaration sur l'honneur ni man benn nationalité laa am def ko 2019 defaat ko deux mille vingt 2023 andi ay preuve am moom ka warul bokk président kooku lay waxal ñoom ñoo jiite proposition de loi bi indi problème bi yëpp nee na moom du mbirum ger bi sax wax na ko keroog parce que xam na ni mbirum ger bi du lay ba mu dajeeg journaliste yi nee na du mbirum ger bi moo tax mu mu arrêté processus bi proposition de loi bi moo tax mu arrêté processus bi et proposition de loi boobu ger lañ fa wax ñoom proposition de loi bi bu ngeen demee ci maa ngi député la assemblée nationale jour boobu dégg ngeen ma may wax gis ngeen rapport commission des lois bu ñu kii page 3 si nga xam ni président Macky Sall lépp lu mu wax mun na wax le lendemain le contraire parce que page 3 ci rapport boobu dañu ci bind nii que des soupçons graves de corruption qui pèsent sur deux magistrats du conseil constitutionnel et le premier ministre Abdou euh, euh Amadou Ba c'est écrit noir sur page 3 rapport de la commission des lois donc loolu moo tax mu gàntal et ñu jiite processus boobu ñoo ñooñu mun ñu leen tuddee spoliés parce que li leen dal ñoo ko yóbbee seen bopp amoon nañu cinq ans pour wax seen candidat andil ñu ay preuve que pertinence nationale bi defuñu ko te ñëpp a xam ne amul nationalité waaw ma laaj leen Sénégal comme ni nga ko waxee yow jàng bu fekkee ni dañu am examen ñu ne sa certificat de sa attestation de de de de naissance dafa war a dater de mois de trois mois extrait de naissance dafa war a dater de moins de trois mois nga indi ba trois mois plus deux jours ndax dafa changé dara ci sa date de naissance mais pourtant dañ ko boo moytul dañuy rejeter ce dossier ndax dafa bokk ci condition yi fii fii boo andee extrait de naissance ci présidentielle bi boo andee extrait de naissance datant de plus de six mois plus un jour dañ koy rejeté pourtant mun nañu sukkandiku ci sa carte d'électeur bi nga xam ne am na sa extrait de naissance sa sa date de naissance mun nañ sukkandiku ci sa casier judiciaire même l'État du Sénégal mun na dugg ci seen fichier xam ne effectivement Euh, date de naissance bi c'est valide mais dañ la ko laaj pièce la forme forme bi forme bi moo tax ñu war ko rejeté ñuy layal ñooñu ñooñu la ñuy waxee spolié ñoom ñoo jiitu spolié yi mais lu gën a graaw mooy président de la république boobu ci boppam ba mu dajeeg ñooñu le 24 janvier 2024 bii weesu ça fait un un mois presque jour pour jour def leen ni et il a un communiqué ni leen man lii ngeen di ñëw di ñaxtu ci man nii du fi ngeen ko war a ñaxtu te kenn mënatu ci dara parce que décision conseil constitutionnel ça suuf souffre d'aucun recours et que le 25 février day am élection il a fait une déclaration ah mais trois jours après nga annoncé report élection yi mais ça veut que moom ci boppam xam na ni li mu doon def soxlawul ñu fi nekk di def ay démonstration yu yàgg moom ci boppam xam ne lu muy def sukkandikuwul ci dara moo tax li muy dox nii lépp mooy li ñu war a jàpp ñun ñi ñëpp sénégalais mooy Macky Sall mu ngi ubbi prox ndoll pour effectivement le 2 avril mu sukkandiku ci article 36 2 bi nii te d' accord naa tamit ci li ko Cheikh Faram Fàccee mu leer nañ ni kooku waxuñu ko woon pour effectivement pour mu yokk dañu ne président réew mënul am ñaari président am na président élu am na président en cours tant que président en cours bi installé wuñ ko président tant que président élu bi installé wuñ ko président bi fi nekk mooy président warul am conflit loolu dañ ko régler pour régler conflit boobu la mais pas pour ni que président bi mun na randal élection yi di yokk mandam nu mu ko neex maintenant la situation dans laquelle on se trouve waaw moo tax. dès demain dinañ déposer recours non non moom moo ko créé moo ko ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. situation bi waaw mais. buñ ko buñ ko buñ ko bàyyee mu def ko mu jàll. mais ëllëg président bu ñëw doo xa doo sax attention ce qui ce qui se passe c'est très grave. mais dafa am deux am visiblement fii deux ans. dama bëgg mu. dama gën a dama bëgg ñu taxaw foofu wax mu leer réew dangay xool ay ati ati at ci kanam fan lañ nar a jëm bu ñu ubbee prof ndoll bi. gis nga président bu nar a ñëw bu bëggul organiser élection décret boobu bu ñu jëloon moom le 29 novembre président de la république Macky Sall dafa jël le 29 novembre 2023 bi décret pour convoquer le collège électoral à le 25 février bu fekkente ni nangu nañu lii mu jàll. beneen président buy ñëw du xaar sax ay conseil constitutionnel day toog bañ a jël décret initial mooy li ko conseil yabal nii war na convoqué quarante cinq jours au plus tard ou trente jours et cetera article 31 day toog bañ a convoqué may boppam ay 6 mois ay 8 mois am na fi ay Congo am na fi ay Guinée am na fi ay réew Afrique yu bëri attention c'est très dangereux jërëjëf Mame Boye Diao euh, dialogue bi euh, démarré suba est-ce que da ngay sa position doo si bokk te est-ce que mën nga ñu wax lan moo tax bëggoo dem ci dialogue suba. waaw